abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na recette bi yaay ci ko yore kaay leen ñu dem abonné ci sama néeg sangoo sama mbalaan mi tëdd ci sama lal bi yéefar yi ak makka dénkaan yi ñu ma dénkoon su ñëwee nga delloo leen ko suñ la reyee gàddul naa la aljanna suñ la soo soo sowee nag nga ñëw fekk ciment ah kon kay lii ñuy wax intihaariya alin moo jëkk a def istishaariya moo jëkk a joxe boppam joxe ba kanam nangu dee ngir yàlla ak yonentam alin moo njëkk def loolu mu jël mbaraanam yonent sangoo ko tëdd ci lalam nangu pour buñ ko reyee mu dem waaw demal jànna ci ndigalal yonent bi ci loolu yéefari xëy gannaaw bu ñu waxee ne léegi pexe mi ñu am daal pour yonent bi mooy ñun ñëpp nañ looy suñuy jaasi rek su jullisee fajar pax mi ñu ko gasal bu ci daanoo ñu cawandoo ko suñuy jaasi su dee rek ñu suul ko ay bokkam duñ man lu may fayeku ñu dee ñu fay leen boobu boo xam jeex ñu ne wante suñ nekkee ci suñ géew yi di ngoom laan di naan sàngara ba bër set bu Muhammad di ñëw ñu duñ ko yëg magam najat ne leen man ba ma yàlla bindee ba léegi musumaa nelaw xaw ma luy nelaw léegi buy ñëw rek danaa leen yee ngeen dal di koy rey ba ñuy laal suuf moom moo njëkk nelaw yonent yàlla xamal ko loolu mu ànd ak Aboubacar Siddiq ñëw julli bi mu jullee ba pare génn jaar ci seen kaw ci seen kaw dënn yi la jaar seen njañ yëpp mu feesal ko suuf te xeer ci seeni gémmiñ daal di dem yoonam sallallahu alayhi wa sallam fa lañ nekk di nelaw ba ñaari kuy ji dañoo fa jaar saddal leen ay bayti ne yal yàlla yërëm ñaari gawar yi nga xam ne ñoo wàcc ci xayu mu maabat sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xeew nañ magam najat ne ŋàng rek di nelaw ñu fëgg ko ne ko góor gi yow danga nga ne woon doo nelaw ba nga juddoo ba tey mu daal di fuddu bébbali ne man de waaye mosuma xam ne nelaw nii la neexee Mouhamad daf ma njabar ñu ne ko góor gi yow ba nga juddoo ba léegi nelawooy sa liggéey mun leen waaye nag mag du jeexal pexe léegi nañ dem rek fekk ko këram buñ demee daanu ci koom rek rey ko wax ji jenn bañ ñëwee ba jub kër gi nag fekk Ali ibn Abi Taalib bi ngi tëdd ci ko lalu yonantu bi sàngoo mbaraanam ñu ne def leen ndànk lal bi moom lalu yonantu la mbalaan bi mbaraanam la waaye tër bu ñaaw bii dindiroog garab gu daanu kii Ali ibn Abi la ne ko jogal xammi nañ la ana yonent bi dafa dem ak liñ ko denkon mu dal leen da ngay na bon di wax lolu waye yeen a ko tudde won Mouhamadou Lamine bi muy ndaw naka lay nek lamin bi muy ndaw dem ba nek mag di def njubadi seen bagage yu bon yi ngeen ko denk moma tere dem and ak mom waye and ak seen toroxtan ak bakkan yàlla rañaanee na ab yonentam nu leen ci dara gaday na dem na boromam ci digelal boromam abo jall na do am mukk yonent bi du raw gaaw leen dabal ma ko laa wax képp ku ko andi danaa jox téeméeri gëléem téeméeri nag téeméeri jaam yu góor te lu nekk mu digee yaarama a gën a bëgg halal ñu tasaaroo nag ña ngi koy wër di seet xam na ñetti fan di wër baag ci xunt mi nga xam ci la dugg sallallahu alayhi wa sallam sahabam sahabaam soosu abubakar siddiq ba ñuy dugg ca ma rek yàlla yebar jalgooñ mu ñëw ma ba mun a taras pi tax ñëw nen ca bunt ba garamat na ñantaan sax fa ñuy wër baag si foofu ñu werante ne waay sii rek la mën a ne mi ngi ci biir xunt mi ñu ne xanaa da ngeen a dof xunt mi waxuma la Muhammad waaye ba fi jargoñ yi darab booba Isaa sax ñëwagut nekku fi Babacar a ngi tiit bay jooy yonent ne ko Boubacar loo xam ci ñaar ñoo xam ne yàlla mooy seen aji ñetteel su ko bàyyi waxaan ndeysaan àlli jànn xanaa ah yàlla dali wàcce alquran ne illaa tansuruuhu faqad nasarahu llahu id axrajahu alladina kafaru thaniya snayni huma fi lgaari id yaqulu li saahibi laa tahzan inna allaha maana maayiyatu boobu aboubacar siddiq moom rek la ko yàlla noo nangul ci alquran keroog ca jaayante ga bokk na ci li nga xam ne moo ko may moo ko ku bëgg du am sago ci kum bëgg abubakar di joy rek yonentu dal di wan ne ko xoolal fii mu xol ci biir pax mi rek gis geej ay gaala ngi taxaw mu ne ko ñi ñun lañ jël si buñ ñu bëggee gis ñu dugg ci gaal yi dem foofu la xelam doora dal nag bañ demee ba wóor mi jeex ci la yonentu continué sallallahu alayhi wasallam sallam dugg madina nag ma nga dugg tàkkusaani suuf war gi gi ñëw adbaaw ah sahaba yaa ngi koy teeru nag di ko طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع جيت صرفت المدينة مرحبا يا خير داعي نغي وي جنق جيتم نغا بيرو فلدي وي نان نحن جوار من بني نجاري يا حبذا محمد من جاري نان كو نيول في لا دال دوله جي نه ديكو صلى الله عليه وسلم امون لين باي اباو سي نديغال xaat baaw dax di ràmb baax si ca pak ne groupe sukk jóg demati ci beneen groupe sukk jóg ba barab ñetteel mu ne groupe tëral baatam dal di jooy yonentu ne hunal manzilu incha allah fii mooy wàccuwaay bi incha allah foofu mu mujj tëral baatam jooy fala yonon fa lañ suul yonentu bi sallallahu alayhi wa foofu mooy këram foofu la dëkk foofu la defoon jàkkaam ja foofu la génnee àddina fa lañ ko suul itam sallallahu alayhi wa sallam saaba yi rëj rëj loo nag xëccoo bagaasam ku ne ne maa koy dalal aboo yow ba doon saar yi nax leen ne man de mënu ma am dalal yonent bi waaye xanaa ma jël bagaasam dugal sama kër barkeloo bi yonent laajee ne waaw man coow li sax an sama bagage ñu ne abu ayuba ko yóbbu mu ne almaro maa raxli kenn tàggook tàggoog bagaasam noonu dem dalee këram sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wàcc ak yonent ci Medina gannaaw bu mu wàccee nag ba am waaw at ak genn wàll sahaaba yi di gàddaay di ko fekk si ñoom waa muhajirin ku ñëw mu def bokkale googu nga xam ne moom la jëkkal def muhajir bu ñëw mu booy laak ab lansaar yu ne la kii ak moom mbokk ndey ak baay tey su dee yaa koy donn boo dee moo lay donn ñu seddoo seeni xalal àgg nañ ci sax ku mu fekk nga am ñaari jabar da ngay bàyyi kenn ki su jeexalee yedda nga may ko nga may ko sa mbokk mi la fekk si ah, ñu dem ci loolu ab diir seen am-am daldi wàññeeku lool bekkoor dal leen dal nag bañ sonn ñu ñëw ci yonent ñaan si ko ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla sonn nañ lool suñu li ñu amoon jeex na te yaakaar nañu sa ñaan nag ñu ñaanal yàlla may ñu ndimbal yonent ñaanal leen dig itam dimbal lu bàyyi ko seen borom ne leen itam coono bii ngeen nekkee nag. maa ngi leen di xamal ne Quraysh noonu lañ nekkee in yamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhun misluhu ñoom it ña nga ca coono bu rëy àgg nañ ci coono ba nga xam ne dañoo tànn dañoo ebal seen dañoo tànn seen gànjari jabar yépp dajale ko jël capital ba jox ko abo abo Sufyaan pour mu dem jëggali leen ci Sham te ñaan naa sama borom na ma may kenn ci ñaari kuréel yi benn mu may ma njëgg mi wala mu may ma ndog mi ah ñu ne ñun day nag ndog mi moo ñu gënal yàlla ngi koy nettali naan wa tawadduuna anna xayra daati shawkati takunu lakum wa yuhiqqu llahu an yuhiqqa alhaqa bi kalimatihi wa yaqta wa wa yuridu llahu an yuhiqqa alhaqa bi kalimatihi walaw kariha daawinul mushrikuun shukran imam ah yéen day li leen gënaloon mooy ngeen jot ci njëgg mi waaye yàlla moom li mu bëgg mooy wane dëgg ba nga xam ne dana lottuloo ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ah abo abo sufiyaan dem jëggi ñu ne ci ñeent fukki junne libidoor yu wurus bañ demee ñu jaay ko lépp marsandiis ba muy wàññeeku nag yonent yëg ne mi ngi wàññeeku mu war giléemam ànd ak abubakar siddiq ñëw ba ci benn teen di def li kat di def di reju ñi nga xam ne waaw ñoom la war a xaret pour xam seeni xabaar mu dégg benn jigéen di wax morom ma nag waay lebal ma soo lëgee su fi njëgg mi jaaree danaa ci rotaan fay la yonent ne abubakar dégg mu ne waaw ñu tourné ne tos ña ngay dem ndaw sa neen ey waaw yéen kenn na ñëw ci ab teen taxaw bay dem rek doon nuyu fa fekkoon ni fu ngeen bàyyee ko te xarekat du wax boppam te yonent du wax baatil mukk lépp lu mu wax rek dëgg rey doon te bu leen waxee ne man la dafay weer boppam mu sànni leen ne leen nax nu min ma ci xabilatu xabila yaaram yi am na ci xabila bu tuddoo noonu waaye boobam ma ngay junj maawoon daafeq yaxruju min bayni sulbi wa taraayib ndox man yi mi nga xam ne ca la ñëpp juddoo mu ne leen ca ndox ma lañ bàyyeekoo ñun sallallahu alayhi wa sallam dal di dem ñaari fan lañ ca teg Abu Sufyaan ñëw ak xare bi mu àndat laaj waaw ne waaw lu xew ci seen ron asamaan si yaaram ay waxee noonu ana lu fi bees ñu naa jàmm rek mu ne suñ mbokk mi bàyyeekoon Makka ñëw yonantu yonantu lu lu ngeen dégg ci moom ñu ne ah dégg nañ ne nit ñaa ngay gàddaay di ko fekk si diine ma ngay tasaaroo ña nekk ci dëkk ba ñépp a ngay jàpp ci diine ji xam ndaw su hey man sax day ki ma gis fii démb su dul moom jaaxal na ma man de gis naa góor gu rafet ba tàyyi mosuma gis ko rafetee noonu Abu Sufyaan lox ba daanu fi suuf ne ko nu mel mu ne ko guddut bañ di ko wax njool gàttut bañ di ko wax ndaama rëyut bañ di ko wax ku rëy digg bi nit la ay bëta xarxanamam dafa wëranglu ku jëm dafa rëy ay bëtam dafa weex bakkanam dafa yëkkatiku ay bañam dañoo weex mu ne ko cëm gis nga sama waaja dëgg yonent ngoog sallallahu alayhi wa sallam dem ca fa gëléem ya taxawoon mu xar ndumbaajal ya fekk ci xooxi tàndarma mu ne mu ngoog waa Medina yi yafalee lii daal dina Abu Damdam ñëwal demal ma Medina Makka laay wax soo demee nga ne Abu Jahl nuy Shaam lu gaaw gaaw rek Muhammad dana ma dog maag sama ñi ma àndatoon na ñëw ak wall abo dam-dam gën a xalaku moom jël ay yar caw boppam ba yaram am dagg mu njoof ay noppam dal di rëpptal dugg makka digg bëccëg nan yaa ahla makka axiisu wallu leen wallu leen lu xew mu ne li may wax duma ko wax tàgguma ci jaaru kaaba ga ñépp nañ ma fekk foofa ñu ñëw dam-dam lan la mu ne gis ngeen ni ma Muhammad def mook saabaam yi te ne nañ ma dañ la yónni rek waaye bu juróom loolu danañ la rey léegi lu ngeen gaaw gaaw rek njëgg mi ngeen yónnee woon da ngeen fekk mu dog ko Abu Jahl ne mu ngoo bés ba ma doon nekk nag ñëw na tey laay dajeeg Muhammad ci Badar jàngal ko bind boo xam ne mosu ko gis ba mu demee bay génn Makka dal di woote ne na ñépp takk xare génn mu génn ci junne ña nga ànd ak seen jigéen ñi nag ña nga leen di way ma ngay ña ngay tëgg seen dufuuf seen i tabala di wal seeni i ngaliir di ko kañ mu pareel ko sàngara su bëri yéef iblis ak lan leen dem leen maag yéen a yéen ay gañ ñu génn nag ñu ngay singiliku nag ah bañ demee taseeg abo jàlli nuy Sham taseeg oboo Sufyaan mu leen raw nañ gannaaw raw na xeex bi dootu ko jar oboo jàll ne lan du ma waññeeku mukk te dem ba Badar ma rey sama géléem yi sama jéebéer yi way ma su ko defee xare bi yépp ku nekk dana taal dana taxan aw say ñu taal ko àddina bi yépp jén jéenéer bi ba bu ëllëgee Muhammad dootu xalaat man yónni ni mu ne daf koy dab bàyyi ne ndekete yoo duñ ko way dañ koy jooy ndekete yoo taali safara yooyu muy taal ci lañ koy sànni yonentu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñu tàntal ko nag foofu ci Badar ah saxaaba yi moom ku nangu diisoo la woon ñu ne ko fii nga tànt nekk la te asamaan saa ngi xiin su tawee dafay def ba tax dootuñ mën a xàkkal dootuñ mën a eh, dawal te ñoom bu ñee ci beeñ bi daañ mën loolu su fekkee du ndigalal sa borom dañoo bëggoon ñu toxu fii mu ne leen xare rek la nu mu waxee rek noonu la ñu dem tànnal ko fa gën mu dem taxu foofu ñu tàntal ko nag sallallahu alayhi wa mu daal di tëral xare bi gis nga moo daan jàngale mooy faj mooy jiite waaye itam xare bi mooy général bi sallallahu alayhi wa sallam guerre bi yépp moo koy tëral ah mu tëral plan de guerre ba pare nag dem toog ci mbaaram ma ngay ñaan Aboubacar Siddiq a ngi nekk ak moom ci mbaar mi muy julli di ñaan Alioune mu ne waxtu ma ñëwee ci mbaar mi rek. maa ngi ko fekk mu noon yaa xayu yaa qayumu bi rahmatika nastaxiisu moom la doon ñaane sallallahu alayhi wa sallam képp koy wax sa noon du la mënal dara ba mu yàgg rek mu gëmmentu dal di yeewu ne Aboubacar bégal sa borom ñëw naa ngi dimbalam yàlla ak ñu yónnee juróomi junne malaaka ñi ngi ñëw dimbale suñu ci xeex bi jibril la nga nelee ngëp ci googu fasam ànd ak junne malaaka mikaayil noonu israfil noonu malakul mawti noonu waa israfil noonu sallallahu alayhi wa sallam malakul mawti mi nga xam ne benn minute rek kenn xamul ñaata bakkan la ciy far ñu boole ko junne malaaka ak ñeenti junne yoo xam ne ñi ngi ànd ak moom bàyyi ne way ñooñu way ñooñu ñu ñëw bañ ñëwee nag ñu sappe ñett jëkk génn ci yéefar yi di batu ak ot Utbatu ak Walid ne albiraza ana suñuy kem ñett génn ci lansaar di Awf ak Muawif ak Abdullah ibnu Rawaha ñoom ñu ñëkk a génn ñu ne yeneen ñaan ñu ne ñun de ñett lañ ci lansaar yoo xam ne dañoo jaay suñ bakkan jëndee ko ngir ma la yàlla ak ñu ne ay naaw la ngeen de waaye ñun suñ doomi bàyyi yu jógee Makka ñëw nekk foofu ñoom lañ bëgg a xeexat yonente naa waaw dégg naa wax bi ana na Abdul Mutalib gaynde yàlla ak mu ne maa ngi mu ne ko jógal ana ali ibn abi talib ibn abdul muttalib maa ngi ana abu ubaydata ibn haris ibn abdul muttalib mu ne maa ngi mu a jóg leen léew too ñu jóg xamsatu dafa gaawoon ba nga xam ne moo gën a gaaw melax bi ñuy léewtoo rek fekk na mu boom waaye ja dem toog moom Ali moom dafa bëri woon doole ba nga xam ne ku muy xeexat su la jaaree ci kaw daf lay xar waaye bu la ñëwee wet daf lay til moom it noonu la gaawee ci waayam ja Abu Ubayda nag mook Shaybatu seeni jaas yi dafa rombante ku ne jam sa morom Hamzatu daal di koy mottali nag ñu buuf Abu Ubayda indi ko ci yonantu bi tëral ko sa alayhi wa sallam ma nga naan yonantu bi bëggoon naa yi ba mu la doon wax naan waxtaanu nu sar la nu salima waxtaanu sar boobu mu doon way su dundoon tey dana xam ne man la ko yàlla may moom moo waxoon yonant ne ko duma la jébbal nit ñi yéefar yi mukk ñu agsi ci yow lu may sama jabar dañoo teñi samay doom nekk jëriñ waaye foog loolu amul duñu agsi ci yow mu ne ko moom day moo waxoon bayti boobu waaye man maa ko moom waaye nim seewoon naa nekk téeméeri bakkan bu dee rek ma jox la beneen ba téeméeri bakkan yëpp jeex sallallahu alayhi wa sallam kooku moo njëkk a dee ñu suul ko foofa ca Badar loolu mooy xare Badar ah bi xare bi demee ba metti yonentu nag jóg ci bu suuf daal di jàng wa ramay tey ramay te walakin Allah rama ne leen ko xër ñoom ñëpp nag waaw ñii silmaxa ñi jaaxle mu rey ci ñoom juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo xam ne wax na ne gëneewuma ci kenn dara lu may yonantu gi jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ak juróom waaw daldi leen def genn taayaan xeew leen sallallahu alayhi wa sallam waaw daldi ñibbi nag ak ndam loolu nga xam ne keroog la lislaam am doole keroog la lislaam yëkkatiku keroog la lislaam dox si baag si ci ñun tey loolu mooy lenn ci li ñu doon barkeloo ci siira bi ñu ngi koy def muy haddee ñeel ba yal na ko yàlla nangu allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliqa walxaatimi lima sir alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala ali xaqa qadri wa miqdaari alazim abdurahman imam mu ne nga yëkkati nodd gi waxtu yu jot na arfaay al azan nu abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na